financement film bi nag dafay film boo xam ne ab ndaw moo ko def ndaw boo xam ne niel moo ko jàppale ak yeneen ndaw yu nekk ci juróom-ñaari réew yu nekk ci Afrique sowu jant pour ñoom ñu mën a joxe seen i xalaat seen i seen i vision ci li nga xam ne mooy assainissement ak li po li maanaam communauté bi di dund léegi film boobu nag biñ ko biñ ci paree dañu newoon dañuy ñëw tey won ko ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu assainissement muy décideurs yi muy ONG yi mooy collectivité territoriale muy communauté yi ñu xool film bi xool message bi nga xam ne moom lañ ci jàllale pour ñu mu gën ñu mën a ñaax ci ni ñuy liggéeyee pour ñu gën ko mën a ñoŋal gën ko gën a améliorer pour population yi mën a am accès assainissement bu baax. waaw en tout cas euh, liñ ci gis euh, boo xoolee dafay li tubaab di wax euh, interpellation maanaam ab ab soññiteef la daf ñuy soññ ci liggéey bi nga xam ne moom lañ ñuy def parce que film bi mu ngi wone maanaam ab diwaan goo xam ne. nit ñi dañuy jaxasoo ak euh, ndox mu setul yi mu ngi wone ay nit ñoo xam ne dañuy jël maanaam euh, ay mbalit di ko def ci réseau yi maanaam ci canaux yi loolu yëpp ay comportement la yoo xam ne dañ ci war a taxaw ñu ngi ciy taxaw ga mais am na quand lenn loo xam ne war nañ ko gën a dolli pour mën a sensibiliser nit ñi mën a waxtaan ak ñoom bañ a jël yat rek di dóor waaye di di privilégier la sensibilisation pour nit ñi mën a xam ne ab njëriñ la bu fekkee ne ab canal dafa am dafa jaar seeni gox ñu bañ di ci def yooyu parce que buñ ko ci defee daleen di lor day lor ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk. waaw tolluwaay assainissement quand kame mën naa ne am na jéego yu ñu euh, am parce que boo comparé Sénégal ak yeneen réew yi nga xam ne ñoo ñu wër wax dëgg yàlla mën nañ ne euh, ñu ngi góor góorlu waaye nag ñu ngi góorgóorlu wanewul ne lépp euh, maanaam sotti na déedéet am na lu des te li des bari na. ndax boo xoolee xayma nañ ci benn étude bu ñu def yàggul ne li ñu soxla ci Sénégal pour mën a atteindre accès universel fexe ba képp koo xam ne da nga yeewoo ci Sénégal nga mën a jot ci maanaam assainissement gaanuwaay eh, maanaam romb na ñaari junniy milliards. te te koom googu amaguñu lépp moo tax ñu jàpp ne loolu ab défi la bu rëy boo xam ne war nañ ci gën a taxaw eh, état bi jàpp ci bailleurs yi jàpp ci partenaires yëpp jàpp ci.